wax man la Abdoulaye Diouf nijaay Adji Sarr damaa nekkoon ci groupe boobu di CODAS nag am fa ay problème man la euh, eh, nijaayu aji Sarr maa ngi dégg man nag dama la doon dégg ci groupe bi ngay mag doon wax ay kàddu yu rafet jëmale ko ci suñu jarbaat ma ci doon ma la ci doon sant di la ci gërëm waaye nag dama demee ba nga xamante ne nii mbir mi dafa am leneen lu ko lal booba lañ ma génnee parce que mbir mi bëgguñu ñu xam secret yi dëgg dëgg dëgg dëgg li ñu bëgg mooy ñoom daal ñooy nekk ci mbiru suñu jërbaat di buur ak a bummi kenn du fi wax leen neexut kenn du fi deflu leen neexut te ndimbal nag na ca fekk loxol boroom yaa ngi dégg aji saar moomu man mi man mi nijaayam laa xaqan bàjjanam man mooy sama soxna waaw yaayi suma jabar bàyyi suma jabar ak faabi saar mi jur aji saar ñoo bokk ndey ak baay kon nag bu may génne ci mbiru aji saar ci jëmi boppam loolu duhut lu xel mën a nangu duhut lu xel mën a nangu famille jaambur nag boo ca duggee nga ne woyaa yeey man maa fiy buuraka buumi maa fiy dogal lu ma neex ubbi ab groupe ci turu suma jerbaat boo xam ne dafa am ay problème personnellement jàppalewuloo ko ndax ngay wut leneen ngay wut leneen ah kon loolu képp ku ca nekk di wax waxatoo ngir yàlla defatoo ngir yàlla leneen moo la tax a jóg ngay mag nag nekk ci groupe bi doon wax te comme que groupe boobu nag ci jëmi boppam dafa am leneen lu ca lalu dafa am leneen lu ca laxasu ah François Hélène Gueye moo ubbi groupe bi dugal ci zaaru nit ñu zaaru nit ñi ah ñuy saaga nit ñi di leen wax wax ju naqare di leen wax wax ju soof kon nag dama lay ñaan nga génn dama lay ñaan génn parce que yow gis naa sa taxawaay gis naa itam sa yéene waaw képp ku ma xam nag mu nekkoon foofu ci jëmi boppam dama lay ñaan nga génn waaw génnal foofu comme que nag dañoo ubbi groupe bi ba pare di écarter ay mbokki Adji Sarr kon képp koo xamante ni jàppare Adji Sarr moo la tax a jog dangaa war a génn foofu waaw danga war a génn foofu waaw amu ci kenn ci at mi koy woo ba mu wuyu la man dama musta gis ci àddina ba àdduna sosoo ba léegi ngay jàppale nit ah ngay jàppale nit te nga ni ay mbokkam kenn du fi jege kenn du fi wax kenn du fi dogal ba pullu laa joteel am lu ma ko doon laaj tontuwuma mu saaga ma ma ne ko bul saaga nijaayu aji saar ngay waxal mu saaga saaga ma saaga baay aji saar saaga ndey aji saar saaga boo xolam sedd ma ne ko comme que noonu la nag damaa bëgg nga maandu ci affaire suma jërbaat maandul ci ay mbokkam nit ki mënoo koy jàppale ba pare mënoo koy jàppale ba pare nga ne benn mbokkam du fi wax loolu mënut a nekk nga ne benn mbokkam du du bokk ci ci li ñuy programme loolu mënut a nekk bu ñu naroon ak njub ba ñu ubbee groupe bi at mii at mii ci jëmi boppam ah war nañu maa jël man mii di nijaayam def ma at mi wala ñu jël faamara mii di di di càmmiñam def ko at mi waaye defuñ loolu ñoom dañoo sos seen groupe ci turu suñu jërbaat ba pare nag di ci liggéey liggéey boo xam ne ñun xamuñ ci xamuñ la ko lal xamuñ ci dara ah di layam layami di dem fii ak dem fa di dem ay maaya di dem fii di dem fa te ñun lii li ko lal ñun xamuñu ko yaa ngi dégg kon nag boo ma déggalee képp koo xamante ni jàppale Adji Sarr moom moo la tax a jóg na nga quitté foofu na nga quitté ci groupe boobu nekk ubbi ab groupe ku la neex dugal ku la neex génnee dugal ay jàmbur génnee ay mbokk loolu yëfu feq la dugal ay jàmbur di génnee ay mbokk loolu ku la ne Adji Sarr la ñuy jàppale waxuñu dëgg waxuñu dëgg te bëgg na nga waxal leen ma ko sama kàddu yii nag bëgg na nga waxal leen ma ko sama kàddu yii waaw bu fekkonte ne jàppale Adji Sarr ay jàmbur lañu war a génne mais waruñoo génne ay mbokki Adji Sarr teguwut ci dëgg teguwut si maandu teguwut ci ak njub waaw te yow nag mag nga te mag nag xëjut ci ay caaxaan loolu nag man maa ngi la koy ñaan waaw kon nag soo